waaye Faranse man na gooru Sénégal ci biir nag laaw la ma faraañse ñoo gën a lam de julbeeri ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del roy nag almaami abdu buukar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi safoo seen chaîne bii di Xam Sam Réew TV maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara mu ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk bitim réew bokk yi nekk ci kippaango mboor yi ak ñiy safoo chaîne bi ci kippaango googu nekk ci Facebook bi di kippaango ñiy safoo xam sam réew TV bu ñu fàtte sàmm sunu mbatit su ñam lay siise ñoom waaye support xam sam réew sëñ Bamba mag ci États-Unis cosaanu Sénégal ñuy jëbal seenub nuyoo ak ziyaara mbaa Cheikh Awa Balla ak mbokk yi njañse foofu nag danaa fi taxaw tuuti li tubaab di wax ab parenthèse ci njañse yi ndax dama gis ci pàcc bu njëkk bi di premier épisode benn commentaire boo xamante ni commentaire bu ñàkk ay teggin la te ke ko wax xawma lu mu ci jublu ndax Sénégal boo koy xool daf ci am ñoo xamante ni dañoo bañ seen bopp bañ seen bopp gi mooy bañ seen jàmbaar yi réew am na ñooñ Lat Joor la bañ a dégg loo wax ñu xëpp ci suuf tubaab yi daf ko doon dàq muy wëralante ak ñoom te ñoom tubaab yi seqoon ak Lat Joor de li ñu bind ci moom wute na lool ak loolu buur ba Jolof Alburi Njaay di jàmbaar joo xamante ni am na ñooñ dañoo bëgg a taxaw ni dafa daw ci épisode bu njëkk bi ma xamal leen ni leen bi mu demee ba jubootul ak tubaab yi ci la waaj ngir gàddaay tubaab yi ñëw nañ fa yàgg-yàgg waaye fekk ñu ko fa fekk nañ mu door gàddaay gi mu am benn commentaire bu ñàkki teggin bopp waa ji sax man la njëkk a saaga ndax nee na ma tu racontes des balivernes li ngay wax du dëgg Albury Jolof ni mu réyee bu demee ba bàyyi ko daw da ngeen di rafetal waaye dafa daw te li mu wax waxul dëgg ndax man li may wax waxuma ko wali ndaw mi àndoon ca gàddaay ga mooy nettali te ba muy nettali ak léegi 1970 ak léegi ñaata at la at yu baree bari nga bàyyi koo fële rek man am sa mam da bokon ci noni alburi ndax ba muy dem ñepp topu ñuko won am na ñooñ ba tubaab yi ñëwee dañoo ànd ak tubaab ya waaye Sénégal rek la gis ñuy xass seeni jambar so demee guiné day le roi du wasulu momi Samori Touré tag lañ koy def waaye man fii dong la gis ci senegal ñuy jéem a suufeel sunuy jàmbaar muy héros yi fi nekkoon te loolu yemul ci Buurba Jolof yi dammeel yi ak teeñ rek waaye dem na ba ci nit yi diine yi ndax ku mel ni xadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba su ay sénégalais taxawee di yëkkati ay kaddu yu ñaaw di ko jëmee ci moom wala yeneen kilifa yi diine doo xam loolu lu muy nuru te loolu moo am waaye alburi mi ak njàmbaar la wone kon kenn mënu ko taqal kon koo ca xam ni sa maam daa bokkoon ca ñu àndul woon moom ànd ak tubaab yi ndax tubaab yi yàgg dañu am ay collaborateur ko ca sëtu nag sa maam nettali sa baay sa baay nettali la nga ñëw bëgg dindi lii man li may wax du samay wax lii ki koy wax ci gàddaay gi la bokkoon boobu fukki at ak benn la am nee naa leen maa fekke moom bakkan lay laaj kon loolu rek laa doon indi di wax sénégalais yi sunu magu démb yi jàmbaar yi moo xam ñooñu àddi ñi ñooñu àddina ñi lañu muy dàmmeeleeg teeñ bi ak buur buur ma yi ak sunu mag ñi nanu leen fonk ndax ñoom de ba jëf-jëfee jëf nañu ba bañ jotee bañ nañu kon bu ñu demee ba ci génération bi ay gone yu tekkiwul dara taxaw bëgg xas mag ñooñu du sotti Lat Joor de ku koy soxlu yaa koy soxlu wala nga koy xas waaye boo demee ci mbindum capitaine Canard wala gouverneur Faidherbe gi nga xam ni eh, jàmbaar la woon kon loolu parenthèse la woon rek ma tëj ko te ñëw ci waxtaan wi kon dañuy ñëw ak yéen ci ñetteelu pàcc bi jëm ci gàddaay gi nga xamante ni jàmbaar jooju di Alburi Njaay gàddaay na ko dem na ànd ak amirul muminin di ahmadu cheikhu taal wala cheikh cheikhu ahmadu taal di doomi El Hadji Omar Foutiyu gannaaw ba jóge na fa di wone ak njàmbaar ba na mu daanoo ca dooso nga xamante ni fa ñu ko denc jumaa nga fa kon ku mel noonu ku ko bëgg tuutal walla nga wax ci moom wax ju ñaaw danga wax rekk kon ñun saa Sénégal yi nanu fonk sunu jàmbaar yi fonk sunu mag ñi maa ngi woon ak yéen ci ñaareelu pàcc ba ba ki seqoon waxtaan wi ak Waly ndaw en le 30 avril 1970 la woon waxtaan wi mu ni nag maa nga yemoon ca laaj ya mu doon wax ni laaj na ko ko mu ni laaj yo bokk na ca yow Waly Ndao yaay kan neen Waly Ndao ni ko man de yang-yang laa juddoo fi laa màggee waaye gannaaw bi laa dem Daara Jolof foofee fa laa takke soxna fa laa samp kër fi mu toll nag sama téeméeri at ñeenti at a ko manqué loolu 1970 la woon man de ànd naa ak Alpuri gàddaay gi booba fukki at ak benn laa am sama baay ci xarekat yi la bokkoon ñuy wax guerrier mu ni nag fukki at ak benn fekk na dootoo fàtte ndax booba daanaka góor nga mu ne xam na lu baree bari ci Alpuri loo xamante ni ñu bari xamuñu ko ci moom nee na li tax ma xam ko nag dama dund ak moom te moom Alburi sama maam la woon ndax nijaay sama yaay la mu ni gàddaay gi nag li ko waral mooy Alburi jubóowul woonati ak tubaab yi muy français yi te nee na moom Alburi daana wax ni man Alburi mii day ab tubaab du ma teg loxo mukk man Alburi mii day ab tubaab du ma gis mukk may nelaw moom wàlli ndaw nag mu ni bi nuy gàddaay bi buur ba jolof Alburi di gàddaay te nu ànd ak mom neena na koyangyang, ko yang-yang ba nu ko yang-yang linger lanu dem fa lanu fanaan tubaab yi bi ñu egsee yeen yang booba buur ba jolof alburi mi ngi lingeer nee na tubaab yi dañoo daal di wàññeeku nee na ci suba sa lanu bàyyikoo koo lingeer daal di dugg tàkk gi nag muy désert bi nga xamante ni moo xàjjale Jolof ak Fuuta Tooro mu ni nag mbooloo mi àndoon nag Alburi daanaka xaaj ba dañoo faatu lan moo leen faat aw mar muy bi géej gi jaar ci tàkk gi muy désert di ferlu bi mar wu méttee métti amatuñu woon ndox ba tax na aw mar faat na ci ñu baree bari nee na lanu ca jàppale nag mooy ab taw boo xamante ni taw na ko ba wàññi tàngoor wi ak mar wu metti woowu taw bu baree bari boo xamante ni déeg yi mu di tubaab di wax marigot déeg yëpp fees nañu dell ak ndox ba tax na waa gàddaay gi yépp mën a jëfandikoo ci ndoxum déeg moomu kon ñu gis ni jom moo taxoon buur ba jolof Alburi gàddaay génn waaye metti na lool ndax nit ki soo xalaatee ku mar marwa di ko jàpp ba mu faatu loolu metti na lool waaye bi nga xamante ni bii taw na ba yi am ndox nee na ci lañuy jëfandikoo ñoom ñëpp ba ximmaliku loolee jàppale na leen ba ñu egsi fi ñuy wax kayit yi kayit yi ci Mauritanie la nekk nee na barab di kayit yi penkatam jant ak suba teel jant bi di fenk lanu egsi kayit yi nee bis boobu moo daje ak bisu Tabaski ci at moomu di atum junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñeent fukk nee na bi nu egsee kayit yi ci bisub tabaski bi xéewal yi nu yoroon muy kuskus di cere ndax buur ba jolof alburi waajaloon na ay baraay cere nag yooyu ñu doon wax ni ab yóbbal la woon itam ay seel la ñu ko defoon ndax ndawal gi boo ko seelee bu woowee dootu yàqu moo doon yóbbal bi Wally Ndaw daal nee na ginnaaw ba nu naanee ca ndoxi déeg ya jëfandiku ca ba egsi kaye di ci bisu tabaski bi चुन टबस की जफनिको मन लखन चने बारे वायन मुर्बजल ऑफ अलबुरी मोम यागुल कैदी कौन एक्सी कैदी दल बिजु टबस भी def seenu tabaski ba noppi waaye buur ba jolof Alburi moom dafa daldi jàll yàggul ba kayit yi fan la dem bi mu bàyyi ko kayit yi da ngeen nuy topp ci ñeenteelu pàcc bi ngir nu gàddaay gi kon dig daje ci ñentelu pacc bi ñu di leen sant di leen gërëm di leen ñaax ngeen abonné ci chaîne bi tey tasaare peeñ yi di sant itam njabootu Buurba Jolof Alburi muy ay sëtam ndax gis ngeen ni nah nah natal bi ñu jëloon nga xam ni ab sénégalais moo ko nataaloon rek ñoom njaboot gi am na nataal bopp mooy nataal bu yees bopp ñoo ko defarlu kenn ci ñoom ku nekk tugal moo ma ko yónnee nga xamante ni ni ñu nataale Lat muy nataalam bii siiw njabootu buur ba Jolof Alburi Njaay ñoomit it nañu nataal ca France muy nataalu Alburi kon moom ngeen di gis ci miniature Euh, vidéo bi kon li tubaab bi wax photo officiel nataalub officiel bi nga xamanteni bi njaboot gi ñoo ko saytu moom ngeen gis ci miniature vidéo bi kon ñuy sant njabootu burba jorof Alburi ndax ñi ngi bàyyi xel li ñuy def ba tax ñu woonu xamal nu ni lii nataal bu bees la bu ñu defar ci burba bëgg nag ngeen dugal ko ngir mu tasaaroo kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox rek wala dig daje ci ñeenteelu pàcc bi. waaye Faranse lan na Sénégal ñii ñu dugal ñu dugal Sénégal ñii génn gàddaay far dem ba faatu ñii joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu. fan nañu saamu i cere bi soose. yóbbu gabang boole koog baraama siise taala kapoor ba ñi lekke imbulaañse daf ko ci biir laaw la ma faraañse ñoo gene lam de julbeere ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del roy nag almaami abdu buukar